junj nañ leen ko sànq ci boppu xibaar yi ca këri suuf nekk ca Tëngéej ab quartier la foofe conseil de quartier ba la mu jël dogal mooy woo gone ya jeunes ya nga xam ne ñoo nekk ca quartier ba ngir ñu jàppale kilifa ya nga xam ne ñoo nekk ca mairie ba ngir ne bu ñu defee opération de désencombrement ba noppi ndaw ñooñee mën a taxaw def suivi bi ndax la ñu nemmeeku mooy atum 2016 ba ba léegi lépp lu ñu def ci wàllu googe kilifa ya mairie ba def ko Euh, jaaykat ya jaay mu sew maak yeneen jaaykat ya ambulant yeek ñoom seen dañu ñëw toogaat ci mbedd ya te loole nag ñoŋalul dëkk ba looloo tax ñu bëgg ci wut beneen saafara boo xam ne jàpp nañu ne amaana dina tane ñu déglu ci reportage ca Tëngéej Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak Mansour Ndiaye kilifay mairie bu Tëngéej ñoom dañoo tànn nag finalement daal di xaatim benn convention ak askan yi dëkk ci këri suuf ngir nag daal di désencombré xàll li nga xam ne moo di mbedd yi centre ville bi. brigade bi xëy na brigade dafa bokk ci protocole bi bi nga xam ne moom la mairie amoon déjà bu doon intervenir donc donc li ñu xalaat mooy dañu bëgg a dem ndànk-ndànk mu bañ a am li ñu gënal nag mooy mu bañ mu nekk nga xam ne yow weesu woon ñoom dañ ko daan def nag waaye nag da daan daje saa su nekk ak ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi ñoom lal seen marchands yi ci kaw tali bi ak ci trotoir yi loolee nag tax jamono yi nag euh, këri suuf ñoom la ñu bëgg mooy daal di wu te la ñu duppale seen bopp ak prison. mais y' a sérieux problème euh, euh, ci terrain bi nag ndaw ay. ci terrain bi ay ndaw volontaire yu këri suuf di lëkkaloo ak agent yu brigade surveillance bu mairie ville ak ñi nga xam ne ñoo di élément yu police bu Tëngéej ngir daal di jëmmal li nga xam ne moo di liggéey bu ni mel Mamadou Fofana amaana lii euh, mën a nekk pexe parce que ndakaaru saa yu ñu defee euh, déguerpissement du yàgg ñu gisaat gars yi ñu dàqoon ñu ñëwaat tëngeej nag conseil de quartier ba ne ndaw ña nañ ci dugal seen loxo jàppale waa mairie bi. waaw loolu foog na woo ndaw ñi la ci ñu gën a mën a xam ne ne dëkkuñu pour dëkk rek dañoo dëkk mais pour war a mën a participer ci li nga xam ne moom mooy dindunu dëkku ba. loolu c'est tout à fait normal tamit nit boo nekkee ci dëkk ñi ngeen bokk bëgg-bëgg bokk ay xemmemteef foog naa xàccandoo dóorandoo tamit loolu da ciy am solo benn ñaareel ba am na lu ñuy tuddee action citoyenne aussi parce que loolu ci la bokk mu di nga xam ne ne yow mii de dafa am loo xam te ne nii warloo nga ko ak bërëb ba nga dëkkee ci wàllum cet gi ci wàllum sell gi ci wàllum dëkk wër bi ci wàllum dundin bi loolu yépp ku ci nekk daf ci am loo xam te ne nii sa part de responsabilité la ak loo xam ne danga ko war a contribuer foog naa nag ci fibre boobu noonu peut-être nañuy jouer actuellement pour sensibiliser les jeunes davantage ñu gën a am conscience et xam ne ne que site ba dëkkuñu fa rek parce que dañ fa war dëkk bu ñu génnee dem doxi seen soxla dellusiwaat am na yenn préoccupation yi nga xam te ne nii dafa jëm ci cité bi war a mën a nokki war a mën a nekk ci condition yoo xam te ne nii d'habitation yu baax moo tax ñu bëgg a jouer sur ce levier la pour xale yi par rapport ak difficulté yi nga xam te ne nii am nañ ko ci li nga xam ne moom mooy ay déguerpissement yu dul jeex tey ñu déguerpir leen suba ñu dellu soit pour ñoom ñu mën a ñëw aussi jàpp ci mbir mi bu ko defee dina leen mën a garantir benn minimum de nekkin boo xam ne ni xaj na dina nekk loo xam ne lu gën la ci askan beneen bi peut-être moom mooy loolu xale yi nga xam ne nii am nañu ay jafe-jafe ci wàllum liggéey ak yooyu pourquoi pas sax war na leen mën a permettre ñu organiser wu pour niñ xawma nuñ ko mën a tuddee pour mën a liggéeyal li nga xam te ne nii moom mooy seen gox bi mhm. beneen bi peut-être mën nañ ci jouer mu di beneen levier mairie bi ci boppam à travers ay volontaires wala ñoo xamante ne nii mun nañ engagé wu ci mbir bu ni mel pour taxaw défendre loolu nga xam te ne nii après ces déguerpissements kenn dootu fa mën a ñëw pour di la di la di naan fay ñëw pour toxu si waat fa di fa amalaat yenn activités yooyu yëpp si levier yooyu yëpp je crois que war nañ ci mën a jouer ba li nga xam ne bëgg nañ ko mu di bu déguerpissement amee kenn bañ fa war a mën a dellu soit pour l'intérêt de toute la cité foog naa ne lool dina nekk loo xam te ne nii buñ ko explorer dina leen mën a dimbali. Mamadou Fofana ñii moom dañ leen dëgër pire ba pare mooy mécanicien ak jaaykat yi nekkoon ci ancienne piste d'aviation fii ci Wakam ci diwaanu Ndakaaru démb nag ñu ngi ci doon dajeek taskatu xibaar yi ndax ñoom nee na ñun ndàmpaay ya ñu doon séntu booba ak léegi jotuñu ko ñu ci joxoñ baaraamu tuuma nag waa impôt et domaine ak waa Descos ñi ne ñoom ñoo leen yëkkati te booba gouverneur yëgut gouverneur bu Ndakaaru yëgut te ñu joxewu ci ndigal démb lañ ci doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci teewaayu Tidiane Diallo ak Abdou Malick Thioune ñi nekkoon ci ancienne piste ba ñu dëgër pii leen ca bërëb ba ba léegi daal ñu ngi topp mbir mi waaye dafa mel ni dara antuwul. ancienne piste bi dañ fay nekk depuis vingt cinq ans di liggéey man mii di wax ak yéen amoon naa neuf journalières yoo xam ne chaque jour laa leen doon fay neuf personnes ay pères de famille yore seeni kër ak yëpp. ñoom nag dañoo gis ne ancien directeur général bu domaine ak waa DSCOS ñoo nekkoon derrière démolition yi suñu sukkandikoo ci ñoom amuñu ndigalu gouverneur bu Ndakaaru ñu xëy nag directeur DSCOS Saaburi Njaay ak Jaañ Jaañ Mamadou Gueye de DG domaine ñu ñëw fii ci une semaine ci une semaine ñu ñëw somme ñu ne ngeen di def fii benn kayit ngeen am enn rek la ñu xaar mooy njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko jël ci ay matukaay. kon nag ñu ngi ñaan yow Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye dañu am yaakaar si yéen moo tax ñu ñëw taxaw ci télé bii di wax. suñ sukkandikoo ci collectif bi deux cent millions la ñu jot perte ci mbir mi te fu ñu toll nii ay liggéeykat yu bëri ñu ngi nekk ci chômage ba léegi mënuñu am xëy. dañoo mer ba noppi démb ci ngoon ñu ràngoo ay morso yu xonk mooy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci parc des ruminants ba ca Dalifort fa euh, bi nga xam ne moo ne fii ci banlieue bu Ndakaaru la ñuy ñaawlu nag ne anam ya ña nga xam ne ñoo jiite béréb ba nañu ko yore béréb ba jagut santul yàlla te ñoom ñu ngi ci ay conditions yu métti yoo xam ne moom la ñuy liggéeyee ñuy sàkku nag wax dëgg yàlla ñu audité mbir ma audité nu ñu yoree béréb ba waaye tam ña nga xam ne ñoo ko yore kuréel ya ñu jiite ñu mën leen a yeesal woote ab assemblée général ngir wax waxtaanee loolee yëpp Younouss Sabalde